xibaar yi xibaar yi ci RFM benn waxtu jot na mbokk yi jërë ngeen jëf nu ngi leen di gërëm di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media ñu jukki leen xibaar yi li ci gën a fës ñett ñi ñàkk seen bakkan ci accident cortège bu Pastef bi démb ci booru Nioro tey lañu ñu leen di jébal sunu borom kenn ki ca sëkk ya ca yof la ñu koy yóbbu ñaar yi ci des ca Rufisque gañu fekk baax ñiy defar farine mburu tànk yi ñu taxawee mooy wàññi seen offre la tax ñu bëgg ko def mooy dañoo bëgg ñu yokk njëgu saaku 50 kilogramme bi ci wàllu politique defal nañu leen ab gëstu ñeel candidat yu bari yi ñuy nemmeeku ci ville yu mag yi gox-goxaat yi nga xamante ni dañoo yeme maay moom mu mel ni fay daaluñu leen noonu ana li ko waral Mouhamed Alimou Ba am na ñu mu ci seqal waxtaan Covid 19 cas yi ñu ngi euh, gën di wàññeeku mu mel ni loolaa tax fay daalatuñu ñàkk yi ba tax na nag euh, vaccin yaa ngi périmé njeexitalu weeru septembre rek am na lu ëpp euh, fukk ak euh, juróom-ñaari junniy yoo nga xamante ne sànni nañu leen wala ñu yàq leen euh, ndaxte gisuñu ku ñu ko ñàkk. biti réew daañu ci ànd ak de Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne junior li ci yenn kay yeeg Mamadou Mohamed njaay gis-gis ak RFM COP 26 gay am ca Glasgow la ñuy waxtaanee ban enjeu la mën a amal senegal ak Afrique ci njeexitalu xibaar yi lay doon. Barthélémy Abdoulaye Diop mo faree ci machine yi yi nuyu nañ leen sant leen rafetlu seen ànd Future Media, Futur euh, media xibaar yi ñu dooree kook ñet ñi nga euh, euh, ci accident cortège bu Pastef ci boru Nioro Niki ki tey jii leen di jébal suñu borom ci kanam tuuti bu tisbaar ci kenn ki feulé ci ya ñaar yi des Charifisk Rufisque Bah fekk baax lañu leen di yobbu Ousmane Sonko andak ay délégation bu Pastef demon nañu ci ben hôpital ci ndakaaru seeti ñi nga xamante ni ñoom la ñu nekk di faj ba fii ndax gaañu gaañu yañ ca jëlee woon euh, ñoom nag ñu ba euh, nee nañu daal ñu ngi amab tan euh, nekk di xaar rek analyse yi nga xamante ni defal nañu leen ko Malick Ndiaye mooy secrétaire national gi yore wàllub jokko bi ci parti Pastef ñu déglu ko. Euh, ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ci amoon ay gaañu gaañu euh, def nañ tuuba indi leen démb ci guddi euh, fii ci Ndakaaru man na ak ñun ak président Ousmane Sonko ak ñeneen ci délégation bi commission de sages et dem nañ fa démb ci guddi seeti leen mm-hmm. nemmeeku leen ci anam yi ñu nekk xaw nañu sonn waaye nag alhamdulilah ñu ngi ñu ngi ñu ngi am tan bu baax a baax ñu ngi xaar juste résultat yeeg yooyu Mm-hmm. waaye pour le moment mën naa wax na seen état de santé stable na. maintenant par rapport ak ñi décédé est-ce que mën nañu xam kañ lañ leen di euh, enterré. waaw ñi ci euh, génn àddina xam ne mooy suñu rak euh, Ibrahima Fall di photographe président Ousmane Sonko depuis mën naa ne cinq moom ñu ngi ko fas yéenaa denc ci ca Yoff levée du corps bi mi ngi am onze heures quatorze heures maanaam ñaari waxtu ci ngoon fële ca Grand Dakar. bu ñu jógee foofu tamit ñu ngi dem ba Rufisque nga xam ne ci juróomi waxtu dañ fas yéene denc ci ñaari garde rapproché yi di euh, Ama Ndaw ak Moussa Camara. Mhm. d' accord léegi nag par rapport ak euh, accompagnement bi war jëm ci famille yi nu ngeen euh, fa nu ngeen ci fas yéene taxawee. waaw Pastef moom yu ni mel nii yàgg saa yu ñu dalee am na taxawaay buñ ciy am incha allah te noonu lañ ko fas yéene wéyalee ak suñu commission sociale. ak euh, aussi diaspora bi nga xam ne saa su nekk yi bu amee ñoom du ñu xaar sax ñooy njëkk a jóg. Hmm. te jóg nañ jël ay initiative euh, bu ko defee ñu mën a euh, taxawu njaboot gi bu baax a baax a baax incha allah te loolu moom saa su nekk su yu mel ni amee rek mi naqar mi mi bànneex.

li nit ñi gis moy auto autopont yi taxul mbir mi soti reportage bi en tout cas. fukki waxtu fi ci tali VDN bi lepp di yëngu ba mu dess auto yi. dawal kat yi di klaxonné ngir am fu ñu mën a jaar autopont yi daanaka amatul ben njëriñ Cheikh mom neena yoon bi xatna lol man fi dekk dëkk soriwul j'habite tout près ma ngi dekk Ouest Foire mais imagine ñiy joggé keur Massar Tivaouane peul dara doxut c'est-à-dire ñuy xool ingénieur yi nga xam ne ñoom la jox liggéey bi affaire yi day laaj étude. Ablaye moom nee na ci tardé rekk la dëkk moonte day teel a yeewu. dama obligé yeewu fajar pour mën a yegg tam n'empêche que tamit à chaque jour da ngay retard. am retard saturé na mooy. jéem nañu jot ñii di yëngu ci wàllu liggéeyu otopon yi wante antuwul teewul problème mu embouteillage yi mu ngi wëy di law ba léegi. RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu dem ca université Gaston Berger bu Saint-Louis xam ngeen ko week-end bi dafa amoon ay euh, jàmmarloo yu métti diggante. ay étudiants ak euh, ñi nga xamante ni ñoo fa yore kaaraange gi ni ki dimanche sax la woon euh, ba nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ci wetu université ba ne lii daal nguur gi war na ci jóg saafara jafe-jafe étudiants yi ndax ñoom it bu ñu dee def front daal ñëpp ci sonn ba ñoom ña dëkkee ca kër ya u seenu Diop. dañu bàyyi. fekkee kàddu yooyu benn waay bu tiit la ndaxte rakkam dafa daal di xëm. ambulance bu université bëggoon ko jël si xale yi itam daal di koy joowee xeer. ñoomit ñu daal di daw ngir mën a sauver seeni bopp. mu mel na ñi nga xamante ni dañu dund université Gaston Berger bu Ndar. ay jafe-jafe yu mag la ñu dund bu foron amee Aïssatou Sow moom du ko weddi ndaxte ñaari yoon la xam ba ci mujj aljuma bii la. sonn naa torop na affaire bi dafa na daanu naa fi woon bee paase tamit ak ren yàgg na daal. Njaga Sow borom kër la nee na nag moom lii bu amee dañuy sonn lool. amul ñu benn njëriñ ñun liggéey wuñu suñu doom yi liggéey wuñu te ñoo ñuy sonnal. ci kàddoom lépp loo xamante ay birig la étudiants yi dañ koy toj. ci seen jàmmarloo ak ñi nga xamante ñooy gendarme yi. suñu briques yi étudiants yi dañ koy toj fii kaas nañu ba sonn moo sama doom ji daaw dem mujj fere si moom quarante mille. Umar Ba ak Ndiaga Sow ñoo jàkkaarloo kër moom it jàmmaarloo yi dox ci diggante étudiants yi ak ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi jël na ci wàllam. fii moom saa yu front amérique dañuy sonn quoi. ay xale yu ndaw ñi dem di ñëw. mais kenn xamul li mu jàpp nag mooy état bii jamono jile dafa war a jàppale étudiants yi seeni jafe-jafe yi ñu saafara ko. ñii bu ñu leen réglé seen problème rek bon ñun ñëpp ñëpp dañuy am jàmm quoi. ñoom ñëpp ñi xamante ne dajeeg nañu ñoom yàbbi nañu jëm ci seen jafe-jafe yi ñuy dund. nee nañu lii bu fekkee ne dakkul bis dina jot ji ya am Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop jërëjëf des ci université yi fii ci Ndakaaru université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca fac droit. seeni kilifa dañoo jëloon dogal ne dañ leen bëgg a defal euh, session unique euh, ngir euh, jeexal année universitaire 2020 2021 bañ ko déggee ca lañ ne duñ ca ànd mukk ba tax boobaak léegi ñu nekk di xeex di waxtaan ak ñoom ba finalement saafara am na ca ndax dogal googu autorité yi jëloon daal mujj nañ ca dellu gannaaw étudiants yi nag rawatina ñiy fare ci liste ren bi ñu tuddee renaissance di ko rafetlu di gërëm it kilifa ya ca faculté ba ndax boobaak léegi ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom Victor Biaye kenn ci ñoom kàddu yu mu dénk Salimata Aw tey ñoo ngi sant yàlla ndaxte session unique boobu nañu daan xeex du am ci biir faculté bi dinañ def ñaari session occasion la pour ñun waa Ligue Renaissance ak étudiant fac droit yëpp remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jàppale woon ci liggéey boobu noonu ñoo ngi sant ak gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy corps professoral bi corps administratif yi ak bépp autorité faculté bi wala université bi nga xamante ne yow jotoon nga dox ay jéego ndax ñu mën a am ñaari session ñoo ngi beral nag sant ak ngërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy doyen Ndiaw Diouf ak doyen Jacob Ndiaye ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo ci béy seen waar ñoom ñoo ci taxaw. kaddu yi Victor bi yaay bokk ci amicale étudiant yi ca faculté de droit ñu wax ci wàllum secteur minier bi ki njiitu réew mi. Euh, président de la république Macky Sall yëkkati na ci ay kàddu niki euh, ci euh, suba xam le ne lu jamp la fi mu ne ngir ñu topato ko na waré wala ila mën na jural rew mi leneen la mi Macky Sall ni biñuy salon biñu ñu walu min mom moom rew mi daal di na it sàkku ci rew Afrique yi ñu liggéey joxante loxo ngir taxawal ben code continent africain bi yépp ci soumettre ñu tewlu mu denk Abdou Diouf Junior dama bàyyi xel bu baax a baax ci secteuru miin ndax li mën a jur bëri na ak tamit li mu wundu di nag loo xam ne bëri na lool ngëneel ak am-am waral nag ba faw ñu encadré ko bu baax a baax waaye tam ñu yemale ko fexe nag ba aar ñiy jël seen koppar dugal ko ci ñu dal di ko bàyyi xel aar seeni i droit ak seen i waaye nag bu dee contrat yi nag ci wàllu miin yi jaarul yoon yemalewuñu ko li mën a jur ci askan wi rek lay delluwaat ba ci yàq seeni nekkin ak seen dundin waral nag ba li ñu bëgg mooy dëkku Afrique yi fexe daal ba yemoo ci wàllu yoon lu jëm nag ci liggéey lépp lu yem ci wàllu miin bu dee kay mën nañoo fexe ba am code minier boo xam ne dafay doon benn ci dundu Afrique yépp à partir de code minier de son en concurrence. mu nekkoon kaddu yi euh, njiit réew mi Macky Sall Abdou Diouf Junior moo leen taataan Seydou Nourou Ba moo leen tekki ñu dem ca Tambacounda des ci secteur minier bi ba léegi ndax artisan yeeg fournisseur yu ak euh, entrepreneur entreprise ya fa nekk daal ñu ngay nasakay nocci ngir xool. nan la ñuy euh, def daal bi ngir seen liggéey gën a ñoŋ waaye it commande yeeg sollicitation yi ñi industrie minier yi di am ñu gën ko mun a yéwénal Euh, ñoo loolaa tax sax ñu taxawal benn plateforme bu ñu tuddee naatal Sénégal Moussa Oumar Gueye. am na koppar bu bëri bëri boo xam ne dafay génn ci Sénégal di dem ci bitim réew loolu nag mu ngi soxe ko ci industrie extractive yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum mbell mi ñoom nag lu bëri li nga xam ne dañ koy itteewu fii ci Sénégal duñ ko fi mën a am dañ koy jéggaani Ibrahima Souri Diallo moom mooy secrétaire exécutif bu ONG La Lumière. tabax ay bâtiment euh, ci menuiserie bois ci menuiserie fer ci tailleur donc ñooñu aussi ñu mun a euh, mu ci gis seen bopp. ñooñu ñu ci ëpp ay tubaab lañu bitim réew lañu jógee suñu la soxlaa ndox il faut nga indi leen ndox bu sell ci soxlaa table banc il faut nga indi leen table banc boo xam ne bi dafay répondre ci yenn critères yi. ki nga xam ne nag mooy Madi Dramé moo jiite benn kuréel bu ñuy duppee plateforme locale bi lëkkale fournisseur yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyandoog industrie minérale yooyu ñu duppee ko Naatal Sénégal nee na nag jot na ñu daal di nag gën a xoolaat seen doxalin ngir lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu kotaay bu ñu demee ba ëllëg si biir ñu jox leen ko fekk nag liñ ciy soxla itam ci wàllum qualité fekk danañ ko mën a matale ñeel entreprise yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum mbell mi. président euh, Abdoulaye Sarr Ndiabote ci chambre des métiers mais également chambre dem nañ ba yegg ci ay niveau quota ñuy wax ay waxu quota par région il faut que maintenant dans chaque région kuréel bi exister kuréel bu existé mu mën a def veille bi ci war laata kon ñuy gis ay jeexital yi soxeekoo ci contenu local muy benn xeetu loi boo xam ne dañ ko defoon ngir lépp loo xam ne dafay soxeekoo ci mbell mi commune yeeg collectivité territoriale yi gis ci seen bopp ak ñi nga xam ne ñoom entreprise yeeg entrepreneur yeeg fournisseurs yi loolu nag ci jamono ji nekk na li nga xam yembagul tax artisan yeeg fournisseurs yi fare ci diwaanu Tambacounda ak Kédougou daanaka ñu ngi ci guddi gu bët setagul Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Media Moussa Omar Gueye jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di euh, ci ànd euh, rajo Futur Média 13 rajo askan ñu wax ci feebar bi di mbas mi ak vaccination bi nga xamante ne ñu ngi ci euh, ko ciy def am na stock vaccin yu bëri yoo nga xamante ni daal mu ngi nekk fii disponible na Sénégal. jafé jafé bay moy gisunu kay euh, kañaw di euh, vacciné wu wala bok euh, ñu mun ko utiliser na mu waree loola tax ci wéru septembre rek amna juni juni dose yoo nga xamanteni dañu ko muju yak ndax dafa don périmé loolu nak ki nga xamanteni modi docteur Ousseynou Badiane di responsable programme élargi de vaccination nee dal daal dafa ragal né fi rek weer yi jëm mbir mi dina gëna doy war dem na sax ba ministère bi il faut que ñuy différer date yi nga xamanteni ci lañuy andi vaccin yi su ko defee ñoom itam seen wàll ñu mën a gën a ñaax askan wi ci ñu dem ñàkku ji ñu teewlu kàddu yu mu dénk euh, Awa mbay moom docteur Ousseynou Badiane depuis nag lim bi ñu ñàkk bi mu wàññeekoo dafa tax na fi mu nekk nii am nañ ay ñàkk yoo xam ne dafa yàqu parce que day périmé sooy xool bi weer bële di dee septembre bi muy dee am nañ lu toll ci douze mille sept cent trente doses AstraZeneca yoo xam ne dafa périmé donc weer wii dee nii am na yeneen loo yuy périmé ñu ngi nekk di ko xayma amaguñu lim bi waaye yaakaar nañ ne ci liñ jot am ci ay xibaar dina romb fuuf loolu nga xam ne moo périmé woon. maanaam dina ful ëpp loolu. dina ko ful ñaar ñett juróom ke wala juróom ñaari yoon fu mu nekk nii parce que nag le weer yi passé daanaka booy xool booy xoolee communiqué du jour bi da ngay gis ne li ñàkk par bis lu néew la léegi nag ñun pour euh, loolu ñu mën ko moytu bu baax fu mu nekk nii ñu ngi jéem a xool ñett yi nga xam ne waroon nañu ko jox niñ koy différé maanaam ñu randal ko tuuti ba am temps pour utiliser li fi nekk ensuite aussi ñi ngi xalaat ak district yi ñi ngi développé ay li ñuy wax plan de relance yoo xam ne nii pour mën a làbbaliwaat mbir mi pour que nit ñi euh, ñu mën Euh, ñu ñëwaat di continuer di ñàkk donc yooyu yëpp ñu ngi nekk euh, di ci xalaat pour pour éviter vraiment que ñàkk yi di yàq Sénégal. Docteur Ousseynou Badiane di responsable programme élargi de vaccination. Euh, lu ëpp euh, junni hôtel bar restaurant ak yeneen i réceptif sax yu nekk ci Petite code bi ñoom ñëpp ci clandestinité la ñuy liggéey maanaam amul kay amuñu kayit yeewaat ngir mën a def seen liggéey na mu waree acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy yëngu ci wàllum tourisme yi nag ñoo ko xam ne di ci arti autorité yi ndaxte dañu gis ne hôtel yu mag yu bari yu nekk ca Saly daal amuñu agrément ba war euh, loolaa tax ñu ci interpeller service yi ci nguur gi ngir ñu càmbar ko nu mu waree tey jox leen kayit su ko defee ñu mën a nekk ci yoon Abdourahmane Diallo Hotel yu Salib, sali bar restaurant yak terrasse yi ñom ñëpp ay clandestin lañu ndax amuñu agrément buñu sukkandiko ci ñi nga xamni dañuy yëngu ci walum tourisme Mamadou Diop moy directeur Riviera. abdourahman ça veut dire que ñun ñëpp on est dans la clandestinité man benn entreprise la fi xam bu am agrément moy mbay la hôtel fi man awma agrément ça veut dire que procureur bu ko déxon suba mu ñëw fi fii en face kenn fi agrément je défie quiconque fi oto yi nga di yëngu su yëpp kenn amu ci agrément dama lay ñaan nag de par votre entreprise yéen muy RFM wala ak TFM ngeen relayé ko ba président jot si xamu ne fii la la petite côte la fii ñun ñëpp ay clandestin la amuñu agrément li ni mel sax a tax kenn yombalu leen lu jëm ci wàllum fiscalité comme ni ko jiitu réew mi waxee woon ci jamonoy mbas mi quand le président a demandé aux impôts et domaines de sursoir des charges et cetera taxes yeeg yu dema ko noonu on a applaudi mais rien n'est fait parce que quand on est allé aux impôts pour demander euh, euh, euh, quelles sont les taxes ou quelles sont les charges qui ont été diminuées ou ainsi vous n'en faites pas partie parce que vous n'avez pas d'agrément. Ni di yëngu ci walum tourisme tamit di ñaawlu taxaway ñi nga xam ñom ñoy yor kurel gi nga xam daf leen war lebal le président au sortir d'un conseil des ministres informé Adine bi yëpp waxuma le Sénégal rek waxuma nak un comité de crédit bo composé de personnes qui sont même pas nommées par le président de la République qui sont même pas nommées par décret.

fi mu ne nii nag déggoo am na euh, ci euh, candidature bu Ismaïla Madior Fall gannaaw mi nga xamante ni moom la coalition Benno Bokk Yaakaar tab am ñu ko doon ñu ko ci doon ŋaññ mujj nañu waxtaan ba déggoo am ci gannaaw euh, responsable yeeg yeneen cadre yi ñoom ñëpp ni nangu nañu léggéey su ko defee Benno Bokk Yaakaar gagné ngoonal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ñuy amal élection locale yi Abdou Diouf Diagne. ay fan ginaaw bi ñu ko tabbee mu war a doon tedd list bu coalition Benno Bokk Yaakaar si génnam gu njëkk nag Ismaïla Madior Fall def ci tàllal loxo ñi nga xam ne naka ñooy di ngatt fal googu nga xam ne daal dinañ ko koy fal moom mi nag mu leen di wax ne dogal gi njiitu réew mi jël dañ ko war a jëfee maa ngi woo ñëpp ci ak déggoo ñu fas yéene joxante loxo liggéey ngir nag coalition bi nga xam ne moom la jiite mën a am ndam bu ñu xaajaloo lu ni mel nag du mën a nekk te déggoo nag la njiitu réew mi santaane loxo boobu mu tàllal kii fi nekkoon journaliste tey te nekk candidate ci commune bu Rufisque Est daal dina koy nangu Nafisatou Diouf da doon lancé mouvement bi mu duppee Nafi pour Rufisque. Nafi pour Rufisque dina topp ci ginnaaw professeur Ismaïla Madior Fall ngir nag mu mën a gagné mairie ville ak mairie bu commune bu Rufisque Est waaye nag bu boobaa dafay démissionné ci bu Est te bu boobaa nag jigéen ñi dinañu wane seen bopp. ci échec Diouf nekkul moom rek moo nangu joxoñu njiitu réew mi député Souleymane Ndoye daal di ne ñëwaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar kii jiite conseil départemental nag dafa créé woon ab liste parallèle boo xam ne mu ngi ko duppee coalition Benno Defar Tëngéej RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne des ba tey ci élection locale yi ñu fas yéene amal ci weeru janvier atum 2022 Mame Mbaye Niang euh, candidat la ci euh, mairie bu Ndakaar euh, waaye nag candidature am ndax njiitu réew mi nangu na ko loolee la ñu ko laaj ni ki ci suba ba mu ñëwee ci RFM matin mu ne li mu mën daal def na ko mooy yëgal na ko Macky Sall te dafa mel ni bañu ko ñu teewlu Mame Mbaye Niang kàddu yu mu dénk équipe RFM matin tey. pour tënk wax jooju man fi ma jaar ak moom li ma def ci Pekar. mënumaa def lu woro ak yonam ba may bàyyi politique du ko def parce que lolu du ngor ànduma ak mom ci lolu kon nak Macky Sall xamul limi def. Macky Sall nga xam limi def. dedet euh, liste Benno. liste liste Mambay. Euh, élection avant muy commencer ci ñu melni ni yow lañ doon jaar ñun coalition Sénégal 2035 ñu njëkk investir président Macky Sall 2018 pour candidature Sénégal 2035 bañ koy créer 2018 la. ña ca bokkoon bokkuñu APR ña ca bokkoon bokkuñu ci mouvance présidentielle beruma dara man duma def lu ump sama kilifa am na ñoo xam ne investiture lañ doon ut ci moom man barke ak mu ñaanal ma ma xal li ñuy def ak samay moroomu namal kaddu yi Mame Mbaye Niang tey ci suba ci euh, RFM matin ñu yegsi nag ci gëstu bi ñu leen defal ñeel candidature yu bari ñuy nemmeeku ci ville yu euh, mag yi gox goxaat yi moom yi nga xamante ne dañoo yeme may mu mel ni fay daalu leen noonu

ay nit moo war a gën a bëri ñi nga xam ne dañu xam ne dañuy eh, bëgg eh, askan wi woote leen ndax fu juróomi nit nekk fanweeri mi xëy na yu gudd waaye fu ñaar téeméeri nit nekk boo bu amee fanweer dañu mit donc loolu moom bokk na ci li nga xam ne mën na bokk ci li wax ne wane ne Thiès ak man yooyu ak Ndakaaru looloo ko waral la ca des mooy bëgg a siiw. fii li ñuy recherche mooy lu lay permettre nga mën a am dayoo bu mat sekk ci sa parti buñ sukkandikoo ci Bakary Domingo Mané nekk journaliste nekk itam analyste politique. parce que xam nga boo gagné ville yu mel noonu par exemple boo Guédiawaye boo jëlee Thiès boo jëlee. Euh, disons euh, Dakar à euh, Gagner, gagné une sorte de vitrine c'est-à-dire que Mimi, nous la traité de la même manière que nous traiter quelqu'un qui a gagné une commune rurale loolu moo premier partie deuxième partie bi mooy au sein même de ton parti politique c'est-à-dire que traitement bi ngay am du du méngoo ak yeneen traitement yi c'est-à-dire que à la limite les gens vont dire ah kii moom vraiment il a un poids électoral parce que commune bi nga gagné euh, constitue un poids électoral et loolu baax na euh, dina dina dina dina dina dina intervenir certainement dans les élections euh, dans les élections n'est-ce pas futures yeneen candidat yi nekk ci ville yu mag yi lu ñuy bëgg mooy ñu fës même bu ñu gagné wu ñu mën a négocier am leneen ci nguur gi. gën a wóor mooy Ndakaaru nga ne bu ñu ne kii mooy meeru Ndakaaru kii mooy meeru Thiès kii mooy meeru Ziguinchor loolu dafa am fu dafa am lu ci gis-gis ci xam-xam ci xalaat. positionnement politique nu manta mel boo nekkee ci mairie même bu fekkee ni sa mairie bi amul doole nguur gi dina la jàppale daanaka am na ay fonds de dotation. ak fonds d'équipement wala sa pakaseen naka noonu itam contribution économique locale boo xamante ni dañ koy répartir ñu séddale ko collectivité territoriale bu ne waaye nag boo xoolee ci local yi enjeu bu mag bi mooy jël mairie fës su ko defee nga mën a projeté wu au niveau national am lu gën a am doole. RFM bitim réew. ñu dalal Georges Déthié Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. biti réew ñu tàmbalee ko ca Burkina Faso foofu am na attaque boo xamante ni ay terroristes def nañu ko am nañu ci bëri. yu ci ñàkk seen bakkan. cong gaag ñi am démb ci wetu frontière geek euh, Niger lu toll ci euh, fukki civil ñoom lañ ca faat ab kilifa ci militaire ya xam le ni ñu yoray ngannaay euh, ñu njort ne ñu ngi bokkee ci groupe jihadiste bi di état islamique au Grand Sahara ñoo na ay nit ñi dëkkee ca Dambam doon dem ca marché bu Makoy faat ca lu toll ci fukk ay militaire nag yóbbu nañ leen mbir ma ñu def ay ratissage ndax am na ñeent ñi nga xamante ne léegi tegaguñu leen gët euh, ñoom itam dañu doon dem ca marché boobee bu jamono ji kenn tegu leen gët. ñu dem ca Soudan foofu nag euh, am dala am Hamdok mu ngi sàkku ñu daal di rétablir li nga xamante ni moo di gouvernement ba. njiital euh, gouvernement ba nga xamantene mom lañ fa jëlé manam premier ministre ba fa newoon ba jamono ji mu ngi résidence surveillée li muy sàkku itam modi ñu bàyyi militaire yi nga xamantene wala bokk ministre yi nga xamantene ne nañ leen loxo ci coup d'état boobee leeral yeeg anarocha ci ab euh, ndaje ak ambassadeur yu États-Unis Grande-Bretagne ak Norvège ci le premier ministre bi ñu daaneel daal yëkëti yoyu yooyule cadeau Abdallah Hamdok japp ne ni bu ñu ministre yu ñu teg loxo waye itam taxawalatal gouvernement aviation civile ba fa ne woon mën naa am crise bi ñu génn si ni mu gën a gaawee responsable civil ñu tegoon loxo ci jamono coup d'état général Alburaan ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre gilee weesu ba tey kenn tegu leen gët bu ñu sëkkandikoo ci seen avocat Kamala Al Ghazouali lay wuyo ci kàddu yi mu dénk suñu naataango yu AFP muy euh, xamle ni moom lu muy sàkku moo di ñu daal di leeral fan la ñu teg loxo ministre ak politicien yooyule ci fan yi mujj général Alboran momitam itam dina yëkëti ay cadeau euh, néna gisul Ben jafe-jafe ngir premier ministre ba Daldi d'Aldi di euh, ñëwaat togaat ci bop primature bi fofé ci Soudan digé na ni itam filek ben semaine dañu taxawal ap gouvernement fofé ci Soudan way nag buñu sukkandiko ci yi ministre soudanais des affaires étrangères yëkëti néna muy mom muy premier ministre bi duñu mës nangou nangu bokk ci euh, jàppale gannaaw li ñu jàppe ne ab trahison la bu putchi yi daal di def émissaire États-Unis ci zone boobule ñu ngi xaar ni ki talaata ji ca Khartoum bu ñu sukkandikoo ci ministère de l'information bu Soudan. Dana Rocha George ñu jëm euh, ca Centrafrique foofu nag ay casque bleu yu bokk ci euh, mbootaayu xeet yi dañu leen jóor ay nga ñu ngi garde présidentielle ba. gën fukki casque euh, bleu Égypte nañ ci ay di ñaawlu li ni mel euh, casque bleu yor mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation la République euh, centrafricaine ci naka la mbir ya mbir Vladimir. Montero jokkoon nañu ak moom ca Bangui Seydou tekki eh, ay kaddom Ces casques bleus sont arrivés le 1er novembre à l'aéroport international. casque bleu yi ñu ngi yegg si ni ki dem di ben fan ci novembre à eh, ci aéroport international ba ñu nag yóbboon fa ay eh, troupe manam di kurel yu RC fofé ca RCA nekkoon nak di wutali seen base des tirs de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune alors qu'il n'était pas armé, comme je l'ai dit. Dans sa tentative de retrait de la zone située à 120 mètres environ waaye nak bañ fa yegg see daal la jot euh, jot ay euh, sox jóge ci garde présidentielle té sax sommation amul ñom tamit riposte wuñu ben yoon waaye tamit yor ñoon benn ngànnaay ñu doon nak jéem a fofé foofee ca gox boobee nekk ci euh, témèr ak ñaar fukki mètre yemok résidence bu président bi fofé sax la ab bus dal di fiir ben soxna mu jaare fa ñak bakkanam délégation bu MINUSMA nakarlu ko lool di sax taxaw dal ngir fexé ba yëfi daal di leer ñu ubbi ci L'enquête de SOFA SOFA le bu am ONU ak ñi di Centrafrique Le SOFA c'est l'accord entre l'organisation des Nations Unies et le gouvernement de la République centrafricaine relatif au statut de la MINUSCA. Afghanistan la ñuy jeexalee xibaaru biti rew gën ka tuti fukki nit ak euh, juroom ñent ñoo ñàkk seeni bakkan juroom fuk jël ci ay gañu gañu ci ab ciong wa nga xamantene ñu ko jëmale woon ca hôpital militaire bu Kabul di capital ba ñaari explosion nak ñoo fa amoon euh, bu njëkk ba ñu ne ci kanamu l'hôpital bi ci buntu l'hôpital bi la amé top ci ay tir euh, tiir luy explosion ci mo ci toftalu laata ñoy dégg ay soxi fetel ci koñ wa nek ci wetu hôpital ba jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. Malal Junior Diagne ñu ngi lay nuyu. mu ngi laa fay Barthélémy. tàggat yaram dañ koy tàmbaleeg tournoi de lutte bu CEDEAO juróom-ñeenti réew ñoo fas yéene défier Sénégal fii ci Ndakaaru. boo ko ca boolee mu doon fukki réew yi war jongante googu lay jongante ñu duppee ko tournoi de la CEDEAO CEDEAO war ca dugal kon ay koom ak waa Sénégal ngir ñu mun ko amal fii ci arène nationale lu ko tàmbalee ñeenti fan ci weer wi fee nañu ca toll ci wàccaay geeg naka lañ ko namm kon doxalee ba lépp yemba Maysa Ndiaye kenn la ci wis président wu seen bi ñu dénk ko àllub làmb ji yëkk na ci kàddu ci fukki réew yi nga xam ni war nañ bokk ci jongante bi ñett yi dèjà excès gum nañ Sénégal ngi si des ñëpp ñu ngi leen di séentu si waxtu yu néew si wàllu organisation pratique bi lii xew arène nationale le président Manga de jéem a xool également les matuwaay yi war pour avoir une excellente organisation pratique si biir. organiser xew mu ni toll dafay laaj ay koppar ci wàllu budget fu ngeen ci toll. waaw si wàllu budget moom dañ koy xaaj ñaari xaaj benn bi mooy budget boo xam ni CD CEDEAO moo moomal boppam moo koy doxal boppam. boobu dinañ ko xayma bëree bëri cent millions mu amaat xaaj nag boo xam ni CNG pour waajal boppam pour euh, jël en charge yi nga xam ni si ay frais boppam la bu dee équipe nationale bi comme bu dee ay frais d'organisation pratique yooyu ñu ngi koy xayma si diggante fukki million ba ñaar fukki millions lépp gaa matagul nii waaye vraiment ñu ngi si jëm ay pexe pour que d'ici suba wala ginnaaw suba euh, budget bi ñu mën ko boucler cent pour cent. puis équipe nationale du Sénégal bi war a défendre couleur yi Sénégal nu ngeen ko toppatoowee. waaw xam nga loolu nag ren jël nañ ci matuwaay yoo xam ni pour euh, parce que dañ ni boo bëggee euh, nit ki jox la cent francs li mu am da koy teg ci conditions yi gën c'est vraiment cette fois lépp li waroon pour ñu am euh, une préparation bu normal lépp li waroon pour ñu am matuwaay yi wax Eh, sur le plan physique sur le plan mental sur le plan technique yi jël nañ ko lu mat presque weer wala jege na ko tuuti xale yi tëju nañ lëlu nañ liggéey nañ liggéey boo xam ni am nañ yaakaar ni suñ leen yóbboo si compétition bu mu mënti doon sax waxuma sax CDAO kese mais bu mu mënti doon war a euh, soccer Sénégal nag euh, ma football ca tournoi gay am Dubai daanaka sax jeexal nañu seen jogante bu njëkk léegi Portugal Sénégal moo duma juróom ñaari bal si Égypte ëllëg Sénégal dina lekk waa Espagne tey jii itam ci bis bu njëkk bi Émirats arabes unique Portugal dinañu ca euh, ak Espagne dinañu ca euh, Suède euh, Russie Japon. Euh, Iran laale Ahwa Paraguay. ñu wax ci wàllum football Ligue des champions ñeenteelu journée bi tey ci ngoon lay doon. takkusaan bu tegee tuuti Chelsea ak Edouard Mendy daanu laaleeg Malmo ñoom daanaka euh, bu ñu amee akas lëf ci poñ rek daal di jàll ci euh, huitième de finale Lille faw mu am ndam su bëggee jàll Séville Juventus dina kon joué Saint-Pétersbourg équipe bopp. Euh, Manchester United dafa dem ak Italie fekk foofu Atalanta di Bergame ñoom nag seen jongante boobu dafay tax kon euh, ñu daal di cee gisaat dellusi Italie euh, bu Cristiano Ronaldo Villarreal ak waa Young Boys de Berne dinañu suwe Barcelone dina joué tey si ngoon ak waa Dinamo de Kiev waaye kun ak wéro du joué dafa am gaañu gaañu bu tax mu toog ñetti weer yoo xam ni du bokk ci pomi waye wa Barça indaale nañu seni i bagage Ousmane Dembélé doomu France bi gañon amna ñent ñeenti weer wat di di jongante Bayern Munich mom dina laali ak wa Benfica euh, Lisbonne loolu tam ngon lay doon dinañ ci dektal euh, auditeur yi bu 19h euh genn ci yoyu les matchs ci waxtu wi ñu tolni Cheikh Tidiane Diagne ak Youssouf Bodiang sore cham ñi ngi ci bureau bi di ko pilif bu ñu ko fistété rek ko genn nu daalé duggal légui lima la joon Assane Gueye ci suba. ak mmh. Babacar Fall dama bëgg teug concours salsa. defar naa équipe Babacar Fall ak équipe Assane Gueye concours sar euh, ci kër gi nii nii yow foo bokk équipe Babacar Fall bu Assane Gueye waaw ah, bàyyi ma man daal ñoom ñaar ñëpp waaye yaakaar naa Babacar mooy xaw a tane de kon ci Babacar nga far waaw booy gën de bind naa la foofu Assane Gueye moom dama xam ne ah. <laughs> fecc moom bu dee fecc rek ñëpp a koy gañe dégg naa taafaanka bu mag la woon dégg naa <laughs> jërëjëf Malal Diagne Junior RFM de marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. déodorant Malaysia IOMO, Nyon Nimei, di may jërë jëf pastefu ci pastef ba xëy dem ci pastef moo dal ñett ñi ci xët mu njëkk vox populi ubbil yéenekaay bi Moussa Camara Ibrahima Fall ak amandaw ñoom ñett ñëpp ay militant parti pastef la yu faatu démb ci accident bu convoi Ousmane Sonko bi def ca am na it ci ñi ñu ko yéenekaay bi waxee yeneen ñetti nit yu ca jële ay gaañu-gaañu journal bi dolli ñu ci ne Ousmane Sonko mi ngi jooy aw ñoñam Macky di leen ko jaale classe politique juróom-ñaari blessé ñoo am ci accident bi convoi ba si gicéer lu jige woon ci meeting bu fa ndaw yu Pastef yi doon def bi ñuy ñibbisi bay tolloo kër ayib ca ñooro fa la ñu accidenté suur soi nañu Ousmane Sonko ñàkk na ñett ci aw ñoñam Le Quotidien gis ne week-end bu weex xaat la njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko dund bokk na ci xeexew yi wen keroog ci diggante farandoom yi ak farando yu duuduka yi ci ëllëg sa waa këram yi defub accident bi yëngal na mbaaw journal di waa Grand Place moo ko bind ci xëtamu njëkk ba di ñuy wax ne moom ministre environnement ak développement durable doon it candidat Benno Bokk Yaakaar ca mbaaw meeting d'investiture la doon def dimanche ji ñu weesu waa Benno Bokk Yaakaar gi yépp fa joxante woon daje muy responsable yi di militants yi sympathisants yi ba ci sage yu bu Pikine ñépp nga fa woon fa la Karim Sall alo xamal gaa ñi ne leen changement bi ngeen doon di Abdou Karim Sall teg ci boppu mairie ba bu boobaa ca la doom di neexee ndayam le mandat nañu booba fekk na Jurbel xar ñaar méga meeting sargal ak confirmation candidat bu Jurbel de monsieur le ministre Dame Diop fa doon def fa la Pape Modou Fall directeur de l'emploi wane boppam bu baax a baax ak mobilisation bu rëy mbooloo mu takku lu ëpp juróomi junniy militant le nee nañu Pape Modou Fall dajale na ko ca méga meeting ba moom njiital déggoo ko ca mairie bu Jurbel fexe na it ba bawal gi yëpp booloo taxaw ci wetu Dame Diop kaay yi xëy di joobe moo di Fatou Gueye Diané ubbil la tribune coordinatrice yu jigéeni benn bokk yaakaar yi ci Jurbel li ñu naan ci tubaab une femme un arbre fruitier loolee la woote woon dajale ci lu mat juróomi junniy jigéen ñu jëmbat fa ñetti junniy garab financement vert noonee la ko tudde ñu doon amalee xew-xew bi ci esplanade bu poste ba ca Jurbel Jurbel ba Ndakaaru lépp yéene kaay yi tey jii politique la ba tax journal lay fa mi nga ñuy wax ne fee ca Grand Yoff ki fa Macky Sall tànn teg ko fa di Cheikh Bakhoum njiital ADIA candidat Benno Bokk Yaakaar ca Grand Yoff waxul dara ndax parti politique yeeg ñi bokk ci coalition coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ràññee ci COJER bu Grand Yoff ràññee ci waa AJ/PADS waa PLD waa AFP waa parti socialiste waa LD waa PIT PVD BCG RTAS UDS URD APR ba ci LDR yeesal ñoom ñëpp àndandoo signé ab motion de soutien fas yéene boole seen doole taxaw ci wetu candidat bi di Cheikh baaxum ngir jàppale ko lattre bi nañu ndax waa Benno Bokk Yaakaar dinañu neex a jàppale ni fupp gi mu di rébellion gi mi ngi ni kurru ci seen biir muy Ndakaaru Touba Ndar Louga Tamba yeeg njàmbat yi mi ngi mel ne tulleeg màlle ci ni Macky Sall doxalee ci investiture yi les économies du ci Benno Bokk Yaakaar rek la indi bi di ne waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom it ak ñàkk déggoo leen sonal feeñ na ca Kees feeñ na ca Ndar fii ci Ndakaaru it Khalifa Sall lijjanteegul mball gi ba léegi l'observateur nañu waaye fii ci Ndakaaru li fi tilim ci coalition Yewwi Askan Wi Khalifa Sall póotum biir néeg la ko bëgg a def démb ci guddi rek ma nga woon ci kër Alaaji Malick Gakou ngir ñu seet nan la ñuy def ba lijjanti dossier yi dossier beneen bu l'observateur xëy ci xëtamu njëkk moo di ñaxtu yi defarkati fëriñ yi ci réew mi di nas dogal bu état bi te neexu leen moo waral ñu fas yéene dakkal ndeefarum fëriñ gi ci diirub ñetti fan le témoigné nañu tey ji la ñu koy tàmbali mëñe yi ci réew mi nee nañu li ko dalee talaatay tey ji ba ginnaaw suba ci alxemes yi dañuy fay seeni machine tëj seeni usine pepp fëriñ duñu ko wal savon de Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal déodorant Malaysia Uomo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. yi jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi ñu yegsi ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di gis-gis ak euh, RFM tey COP 26 gay am ca Glasgow la nuy waxtaanee ban enjeu la mën a amal wala boog mën a jural Sénégal ak it euh, Afrique ngir waxtaanee ko ñu ngi ci ligne beeg Ali Aydar euh, monsieur Aydar ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw yow yaay directeur agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte sunu beneen intervenant bi di Mamadou Berté monsieur Berté ñu ngi lay nuyu fay naa leen waaw yow yaay secrétaire national bu rassemblement des écologistes du Sénégal laaj bu njëkk bi ñu jagleel ko Ali aydar Ali aydar COP 26 gay am ca euh, Glasgow du ñàkk yaa ngi koy suivre boobu ak léegi. Euh, ñuy environnement. ci walum walum environnement du guleet ñu def ndaje mu ne mel ñu nous dañ ci xel ñaar euh, décision yi nga ya ñu dañ koy ngir euh, changement climat bi yow ci sa gis personnellement ndaje mi ban am ce que nga réellement Afrique ci dara. bon c'est-à-dire amna ay COP yu fi hmm. ca COP bu nekk ak sa promesse waaye boo demee sur le terrain doo gis dara désertification bi li koy indi mooy gaa mooy mooy gaa yi sàcc garab yi hmm. euh, di leen gor euh, di ko yóbbu Chine bu jëkk Gàmbi lañ doon jaar di rawale par conteneur waaye léegi ñu ngi jaare Mali di ko jaarale quand ci fleuve bi nekk euh, Kédougou di di ko yóbbu Mali conteneur yi hmm. euh yàpp ko ci ay junni junni junni conteneur la at bu nek hmm. donc non la ñu déforestation bi ñun ñoko mëna xex population ñoko mëna xex état bi moko mëna xex hmm. donc euh, am décision bu rafet bu président bi jëlone mu ne ministre de l'intérieur ministre des forces armées ak ministre de l'environnement nañu bokk xeex trafic boobu mais trafic baa ngi fi ba léegi. mi ngi fi ba léegi. mi ngi fi mi ngi fi mi dafa gën a graaw sax parce que nee naa la.

mais xaalis bobu boo ci bëggee jot la plupart du temps da nga koy ak intérêt mhm. donc euh, il faut il faut il faut suñu état dans daal euh, gën taxaw ci li indi désert li indi désert nag ci ñul moy trafic euh, àll bi ñuy gor mhm. bari na boru Kolda légui mu ngi booru ak Niokolo-Koba mhm. gaa yaa gor di dem rek d'accord te garab te gis nga 80% taw bi ak 80% vingt ndox bi ñuy naan mi ngi jógee ci àll bi mhm. ci àll bi ñu ngi koy gor donc euh, ñu daal am nañu yaakaar ni il faut ñu wut ay solution innovant yi nga xam ni day impliquer population yi parce que ñoom il faut ñu xam njëriñ ñun par exemple ñu jëmbat nañu il y a 4-5 ans mhm. ay garabu citron léegi garab yooyu boo dem ci kër yi ñu ko mayee

Mm-hmm. donc ñu ngi ci ñu ngi ci démarche boobu mm-hmm. euh, garabu kàdd xam nga garab bu baax la ndax day indi toos ci suuf si ñuy jël ay ay fruits garabu kàdd maanaam mooy mooy euh, mooy fruit garabu kàdd mooy loolu nga xam ni nag yi dañ ko bëgg trop xar yi bëgg ko bëy yi bëgg ko mm-hmm. dañuy jël ay junni saak

Mm-hmm. D'accord. dina delu ci wat ci yow legui euh, monsieur Aydar na delu si waat ci yow léegi Mamadou Berté euh, Ali Aydar mu koy wax sank euh, grande muraille verte bi nga xamanteni initiative bu phare bu Union africaine la won ñu né dañ ci bëgg a et changement climatique ak it walum désertification waye gis nañu né Sénégal sax ga jiitu na ay réew yu bari ci grande muraille verte bobulé donté amna na ay gàllankoor Ali Aydar mu koy soulever léegi réewu Afrique est ce que mën nañu jëlal jëlal sen bopp. topp euh, grande muraille verte boobu sans pour autant xaarandi dara yuy tukkee euh, ci ndaje yi ñuy gis di ay COP 26. waaw wax ji wax ji jaar na yoon ma ma ma jëkkee jërëjëfal euh, sama xarit sama naataango Ali Aydar ci liggéey bu jafe bi ñu ko dénk. Mhm. mu ngi ciy def lu mu mën nag. waaye wax bi nga ko waxee daal noonu la xam nga béy ci sa weyu tànk. Mhm. mooy yoon bi gën a wóor ci fu nit jëm. rawatina bu fekkee ne askan ba nga ko boolee bokkee mooy euh, euh, euh, diwaanu réew ñu di ko wax Nations Unies mhm. ak seen i COP yi nañ koy tegee COP yi daal ni mu li ñu ko gisee ak mooy ni mu wax na ko sax moom mooy nekk daal dajala bu nit ñi di wax diggaate fii génn fële waaye la cay rot mhm. luy jëriñ ci suuf si ci terrain bi barewul bañ fa génnee sax xaalis bu bu takku ña koy capté di ko jëriñoo pour euh, suñu askan wi fii mhm. bokkul ci ñun bitim réew lañ nekk mhm. te li ci gën a bari ci xaalis bi feneen lañ koy dugal du lan ci li nga xam ne mooy li tax ñu génne xaalis xam nga loolu boo ko xoolee sax euh, fukk yoo jël ñeent moo cay egg ci terrain mhm. nga xam ne loolu yàq na fu ñu ko dugal ñoom ñoo xam en tout cas ñun gis ñu ko ñeent yi daal moo ñëw ci terrain bi te du doy ma jàpp ne euh, boo nekkee ci contexte boo xam ne diwaanu euh, euh, ban banxaasu réew yi nañu doxalee méngewul ak li nga xam ne mooy li baax ci yow yow da nga ram fulla ak fayda doxal sa politique bopp mooy li Union africaine teg bi muy def la ban la muraille verte. Mhm. mais est-ce que mais est-ce que Union africaine oh. Union africaine mën na jëlal boppam en charge projet bi parce que du projet bu ndaw. mais du projet bu ndaw du projet wu ñaari fan tamit loolu foog ñu xam ko. Mhm. projet wu ñaar ñetti génération la génération bu ci nekk dana ci def lu mu mën bu fekkee ne kenn ku ci nekk ci réew ñi mais saxal garab jafewul entretenir ko peut-être moo gën a jafe ni mu ko waxee am na yoo xam ne boo bàyyee mala yi di di dox sax mën nañ la ci jàppale loolu la wax mais nag li ci gën a jafe mooy entretien beeg suivi kon ci lu ñuy xool loolu lu ñuy wax ci biir réew naan aménagement territorial war lañ ko xalaataat suñu réew yi war nañ toogaat nu ñu les programme human rights watch boobu ñu tëral programme d' occupation de cette bande soudano-sahélienne. Mhm. Euh, cette bande sahélienne d' ailleurs qui va de Dakar à. Mm. à Djibouti à Djibouti xool nu ñu koy occuper repeuplement am mu doon ay zones pionnières zones pionnières yooyu am maintenant des niveaux d' activité de type pâturage maraîchage arboriculture et cetera ñu koy liggéey nag ci ay at diru at mais loolu doo ci xaar ñu ne buñ la ci fekkee ndokk buñ la fekku muy noonu. liñ ci ràññee daal mooy ñi gën a yàq ñoo gën a néew lañuy dugal. Hmm. ñun daal ñooy ñooy jàpp métit bi mais ñoom ñooy yàq war a dugal xaalis pour loolu pare naan dañuy leb dañuy abal ba pare captewaat ko ci ginnaaw jëriñoo ko. waaw mbir mi daal noonu la demee. d'accord ay mbiru euh, euh, yaa ma neex la dama lay naxa naay ak demee noonu waaye war nañ ci génn. Hmm. Afrique war na jël euh, décision wu liggéeyal boppam bañ a xaar dara ci bitim réew. Hmm. yombul nag.

ñàkk volonté à quel niveau c'est-à-dire le fait que ba ko lancer ba légui gis nañ ne Sénégal jiitu na ci ay réew yu bari waaw waaw yenen réew yi nga xamanteni grande muraille verte da leen di traverser gis nañu né li ñu def dafa néew par rapport ak fi Sénégal toll amna ay réew yi nga xamni dafa am insécurité mhm. donc euh, pour nga liguer fa day métti parce que dafa am terrorisme dafa am insécurité mhm. mais je crois que Réoui, à leur niveau n'y ngi def effort c'est-à-dire euh, kuréel yu toujours dans le Sénégal nous sommes en avance parce que si nous nga fi def séminaire kenn du la déranger Si mën nga fi def ay conférence kenn du la déranger mais en réalité nous avons capté le fonds yi un bon un bon résultat C'est kenn du leen topp sax kenn du leen topp kenn du leen wax dara am na benn enquête bu mag bi nga xam ni journal Le Monde def na ko. Mhm. FAO a réussi 4 de sa mission. Pourtant, ils ont dépensé 100 des fonds qui leur ont été alloués. Mhm. loolu xam nga bu doon man ak yow ñu yóbbu nu enquête. mais ñoom dara ay séminaire lañ fi nekkee comme ni ko sama xarit Berthe waxee rek. liy dem ci terrain bi daal du dara dara du dara man toujours damay xuloo ak ñoom parce que. maanaam daal ndaje yi ci saal yi la ñu war a saal yi la ñu war a génn te euh, engagé wu ci terrain bi mu leer. ma ne réew boo dem. Mhm. man dem naa foire bi passé gis naa benn maire bu am garab bu pomme bu meññ ba jur ay pomme ma ni réew boo dem dañ nga fa gis ay nit yi sawar ci jëmbat garab mhm. ñooñu la ñu war a jàppale ñooñu parce que ñooñu ñu ngi jël seen moyen pour jàppale alam bi mhm. ñooñu kon boo leen joxee moyen dañ koy boole ci seen moyen rek daal di demal seen daal di demal seen bopp oui mais duñ ko def structure internationale yu mag yi daal ñooy capté fonds yi mhm. daldi daldi daldi investir euh, ci lo xamantene peut-être duñ ko sentir ci terrain bi Ali Aydar nu ngi lay nu ngi lay gëreum bu baax monsieur Aydar euh, Mamadou Berté ma jéxal ak yow wax nga que légui Afrique mo wara a jëlal euh, jël en charge mbir mi ci doley bopam mais est-ce que Ali Aydar mu ngi koy wax légui bari na ci ay réew yo xamantene dañu nekk ci crise fimné ni est-ce que loolu dana na de na neex dana yombal liggéey bi. liggéey bu yomb amul boo xoolee même ci ci téere diine yëpp muy bible di coran liggéey naka jëkk coono la jëm ci nit ki waaye daf ko war a def ngir yombal nekk dundinam ci ci àddina mhm. euh, dëgg la am na jamono période dëkk yoo xam ne euh, dañu nekk ci jaaxle tiis ak ak ci guerre sax waaye du tere programme programme la da koy tëral mhm. cat ba cat la wax bu ci diggante yi amee problème nga bàyyi ko noonu la ca des nga eggali ko bu ñu paree ci loolu ci seen guerre yi te boo xoolee sax yëpp lëkkaloo guerre yi li ko waral problème yi am na ci guerre yi ña koy ña koy créé dañu bañ jublu ci suñu naataange. Mhm. yooyu yëpp problème global la ba muy wax naan géostratégie loolu ci la dugg. Mhm. géo problème géostratégique la de ce point de vue géostratégique Afrique war na taxaw doon benn say bu ko defee problème guerre yi dañ ko réglé bekkoor bekkoor bi peut-être pas mais en tout cas danañ jëmbat garab ci bande so euh, bande euh, bi ñu wax bande verte bi. Mhm. ba mu kii kooku nag du liggéeyu benn benn at ni ñaari at. d'accord liggéeyu ñaar ñett ñeenti génération lay doon pour ñu mën a am bande boobu. te ñu génn te te ñu te ñu génn te ñu génn salle conférence yi. waaw xam nga li ci li ci li ñu wax moo ci nekk euh, te loolu du ci mbiru garab gi rek ah bare na thématique yu bare yoo xam ne xaalis dana génn ci ay billet avion lay nekk ay per diem ay réunion ay demee noonu boo xoolee dans l'ordre de quatre à cinq pour cent mooy dem ci terrain bi ñun luñ soxla ci terrain bi la mhm. rawatina rek bu dee bor kooku moom musu bay musu bay naaru la kooku baaxul loolu tax ma jàpp ne réew yi seen bopp ñoo war a organiser wu doon ay kuréel pas benn réew rek de mhm. kuréel yi ñu di ko xat xool plan d'aménagement bu ñu koy def ak programmation bu muy doon mhm. pour bi yëpp kooku nag liggéey bu permanent lay doon. et parfois aussi et ñuy faral di et ñuy faral di di euh, di évaluer également liggéey bi. évaluer réorienter apprécier sanctionner positivement encourager d'autres loolu la. Mhm. waaye doo teg rek euh, nawet ba nawet nga ñëw jëmbat démarché yoon garab yooyu dégg ñoo loolu bare na fi waxuma mooy li am Sénégal bare na ci yi ñuy gis mais euh, lu ñu war a moytu la ak daw ko parce que loolu yàq la. d'accord. d' accord merci beaucoup Mamadou Berthe ñu ngi lay gërëm